mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay vingt-huit ci suratul kahfi fi suñu borom di waxee ni wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum kon alhamdulillah alhamdulillah ñu ngi yeesalaat sant suñu boroom ci dajale bu ñu dajale ci ab néegam loole ñu ñëw fi ngir jàng ab téeréem téere boobu nga xam ni suñu àllarba ji wees aaya biñ mu joon a jël mooy watlu ma uhiya ilayka min kitaabi rabbik ngalla way del jàng li ñuy waxyu ci yow ci sa téere boroom ca julit li nga xamee ni nii noonu la ñu yàlla nattoo ay portable yoo xam ne jamono ju nekk mu soxla ñu dugal ko ci benn prise daal di koy chargé julit it noonu la téereb yàlla bi mel ci moom war na jamono ju nekk mu tiim téereb yàlla bi chargé waat ci fàttaliku waat ci waaru waat ci ngir jël beneen dogu bu bees bu mu jëm ci boroomam kon loolu su déer it day dem ca néegub yàlla ba day nekk ngëneel ñu koy def ci mbooloo mu nekk ngëneel ci biir ngëneel donte ne ni suñu boroom subhanahu wa taala it dogal na ni ni du ñëppay mën a daje ci néeg ya mu wërsëgal ñu ay ñoo xam ni ñoom ñoo koy taataan di ko jottali ñeneen ña loolu it da ngay gis ni ñu ngi ci sant suñu boroom subhanahu wa taala te mbokk yooyu tamit ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala jàppale leen na doon ci sit yi nga xam ni na doon groupe yi aju ci jàkka ji la xam islam point com wala xam sa diine point com ak télévision bi nga xam ni moom mooy islam tv di télévision mbokk yu jullit yépp loole nga xam ne dañ koy def di jottali kàddug yàlla ñu ngi ñaan yal na yàlla subhanahu wa taala barkeel ko kon incha allah tey jii moom mooy nekk fukkeelu fan ak ñaar ci la ñuy tuddee weeru muharram ci atum 1441 mi ngi noonu loolu di buñ ko buñ ci dëppoo incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا وإن فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم داي واخ اب يونتام صلى الله عليه واله وسلم ci gannaaw moom muy wax ak bépp julit wasbir nafsaka dalalal sa bakkan مع الذين يدعو مع الذين يدعون ربهم عندك نيغا خامني داني وو سين بروم بالغداة والعشي تلغا خامي ني موي كي سوبغا اك تشغونغا يريدون وجهه دي ساكو لاغا خامني موي كانامامغا تي موي نغرمم ولا تعد عيناك عنهم bul jéggil say bët ci ñoom turidu zinata alxayaati dunia ngay bëgg li nga xam ne mooy taarub dunduk àdduna gi wala tuti ngalawaay bul topp man rëfalna qalbahu an zikrina koo xam ne dañoo sàggane ab xolam ci mu ñuy fàttaliku wattaba ahawahu mu toppay bànneexam wa kaana amruhu furuta mu nekk mbiram lépp baatilan nekk ak neen ak pertaange mi ngi noonu wa qul ilxaq min rabbik dellu wax dëgg mi ngi jóge ci sa boroom da ngay dellu wax dëgg gi jóge ci sa boroom neel dëgg mi ngi jóge ci sa boroom faman shaa képp koo xam ne day gëm fal yu faman shaa koo xam ne bëgg na fal yumin na gëm waman shaa koo xam ne bëgg na ba tey faleet fur ne weddi inna aatadna li zalimina naara ñun de ñi ngi waajal yéeféer yi la nga xam ne mooy sawara axaata bihim suradiquha dana leen peeg la nga xam ne mooy ay barrage am ay miiru sawara moo leen di wër wa an yastaxiisu suñu sakkoo ñu nandal leen yuxaasu bi ma in kalmuhlu dees na leen nandale walloo leen nandal leen ci ndox moo xam ne kal muhlu muhlu arab dafay wax bépp weñ gu ñu seeyal biteex la or la xaalis la lépp loo xam ne dañ ko taal ci sawara ba seeyal ko loolu mooy muhlu yashwil wujuh loolee nga xam ne dana soode la nga xam ne mooy seen kanam ya lakk ko ba mu ñul kukk bi sa sharab aka bon boobu naan wa saat murtafaqa aka bon boobu noppaliku waay ca biir sawara mi ngi noonu mbokk suñu boroom gis nañu ne moo xam ay jaamam doomu aadama yi la ëpp ci ñoom li ñi bëgg moom mooy taaru àdduna bokk na ci taaru àdduna it ña ngay àndal nekk ñoo xam ni ay boromi taar lañu walu bari ci nit ñi da ngay gis ne toogoon nag ministre tel procureur tel nangam tel diw sama xarit la loole da ngay gis ci seen carte de visite la bokk loolu taxoon na ba rasul sallallahu alayhi wa sallam lenn ci yéefiri màkka yi ñëw nañ ci moom ne ko muhammad li ngay wax moom baax na waaye nag ñun en tant que ñu nekk ay kilifa ci màkka nga bëgg ni dañuy ñëw di toog ak sa gaa yi la wër ay bilal ay ibnu masud ay shuayb rumi ay xabaab doxandim yi ak jaami yi ñun nan lañu mën a tooge ak ñoom sunu mbokk yi kilifa arab yi dañuy gis loolee mbokk da ngay gis ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci jéem a maslahal diine xaw na sax mibét ndax du leen wutal place spéciale jàng nga ca gannaaw ca suratu isra suñu borom mu ne yonent bi alayhi salaam ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا budul woon ñun ñoo la saxal proposition yi ñu lay def xaw ngaa jeng ci ñun tuuti waaye suñu borom saxal ko bokk na ci saxal googu mooy déedéet yow yonent yàlla bi del muñul sa bakkan ànd ak ñi nga xam ne ñi ngi jaamu yàlla di ko woo suba di ko woo ngoon ca sàkkuwuñu lu dul ngërëmam ca mbokk booy toog toogala ku mel ni yàlla way booy wut ay xarit utal xarit yuy jaamu yàlla xarit yoo xam ni seen xel ma nga ca waajil julli xarit yoo xam ni lépp lu ñuy waxtaan ña ngi cee sédd la cay ngërëmal yàlla ak la ca dul ngërëmal yàlla ñu mel nii ngay war a toogal suñu borom nee na bul jéggi say bët di jëm ci ñeneen bu àdduna dem mukk ba ngay ñee beneen milieu boo xam ne ña fa nekk ñépp na am ña nga gaare seeni humeur wala seeni kadiyak ak seeni lu mën a doon seen wax yépp mooy bañ demee Londres Suisse ñoom ñépp ay millionnaires wala milliardaires lañu ngalawaay sa xalaat bu mu dem mukk di ñee ñu mel noonu nga xam ne boolewuñ ko ak fonk jàkka ja fonk waxtu yi fonk jaamu yàlla ñooñu nga xam ne boo toogoon ak ñoom deux heures trois heures de temps it doo dégg mukk yàlla nee na wala yeneen ci yàlla nee na soxna si voyage bi affaire bi sport bi politique bi kaza wa kaza tout sauf yàlla nee na yeneen ci yàlla nee na suñu borom mu ne bul toog ko mel ni mukk ndax ñooñu day xamal ne seen jëf yépp ci pertange la te mooy di dajale alal immeuble yi oto yi tool yi dara manquéwul bis ñëw nga dee et après boo dee perte nga ndax lépp loo xam ne ne waajaloo ko woon sa digganteeg sa boroom teqali ko nga ak moom perte nga loolu mbokk kon mooy la nga xamee ni ku ne ñun war na ci bàyyi xel loolu moo tax ba julit toogaayam mooy toog ak waa jàkka ja toog ak ña nga xam ne dañuy jaamu yàlla lii suñu borom wax ci suba ak ca ngoon mooy waxtu julli yépp lay ëmb ndax may li nga wax rek bukratan wasila mooy suba ngoon yépp duñu deñ di woo seen borom borom boobu nag subhanahu wa taala bi nga xamee ni nii wax nañu lii ba pare mu ne nag booy waxit xamal ne dëgg ci yàlla lay jóge mbokk diine lislaam diine la ju bawoo ci yàlla yow mi nga xam ne da ngay waaraate xam nga lu ñu la sant mooy waxal li yàlla wax kese sant ñu la nga jekk-jekkal ci dolli ca lenn wala wàññi ca lenn lii la yàlla wax wax ko ku bëgg dugg ci diine ji na ci dugg ku bëggul na bàyyi lii mbokk mooy diine bokk na nag ay ñoo xam ne dañoo jàpp ne daal war ngaa fexe ba ñépp kontaan wax wax joo xam ne ñéppay ànd ne kontaan mbokk lu ay yonent amul woon nan la ko keneen ku dul yonent ci di amee loolu munta nekk kon waxal lii la yàlla wax dëggug yàlla gaa ngi nii kum neex gëmal kum neex weddil ku gëm yokkulul yàlla dara ku weddi wàññilul yàlla dara ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne xam leen ni mi ngi waajal tooñkat yi te mooy ñooñu nga xam ne gëmuñu la nga xam ne moom mooy sawara safara boo xam ne buñ fa duggee ay barrage barrage moo leen di wër fi amadin mumaddada tey jii boo demoon ci prison yu bari da ngay gis ni fa prisonnier ya nekk yow boo ñëwee da nga traversé ay porte ay cour ay porte ay cour ba baa nga yegg ci ñoom ñi mi ngi noonu loolu tamit suñu borom loolu la ñuy misaal waa sawara dañu am protection miiru sawara yu leen wër am yeneen yu nekk ca gannaaw am yeneen yu nekk ca gannaaw ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni dana leen nattoo ak mar su ko defee ñuy woote ay waay nañ ñu may ñu naan nañ ñu may ñu naan suñu borom yàlla sant malaaka yi ñu ruyal ay beteex wala ruyal lu mën a doon ci météo yi ca loolu xam ngeen mooy li gën a tàng ci liy tàng loo gis mu tàng rek or bu ñuy baxal wala xaalis bu ñuy baxal wala betex bu ñuy baxal moo ko gën a tàng suñu borom nee na loolu lañ leen di jox ñu naan naan la goo xam ne buñ ko jubee mu ñori seen kanam seen der yi lakk ko ba mu ñor xom waaw bu duggee ci biir ba nag ni muy def waliyas billah moo tax suñu borom mu ne xattaat am aahum su duggee dana xotti mbàq ga xotti buti diya tuuru ci biir suuf borom bi nag ne lii moo bon ci naan lii moo bon ci koo xam ne sa dund àdduna yépp ba nga ko jeexalee fee nga téere ji te loolu mbokk mooy sawara yal na yal na musul ñu ci sawara mbokk julit dafa am culture bu sénégalais def ci boppam te mooy yàlla soxorul su ko defee jàpp ñu ni yàlla moom dana dugal kenn sawara waaye mbokk loolu ak kéeféer la jullit ni nga gëmee aljanna noon nga war a gëmee safara ni ngay sakkoo aljanna noon nga war a sakkoo ñaan yàlla musul la ci sawara loolu tax ba ngalwaay nañuy bàyyi xel ci loolu bu baax a baax loolu kon mooy mbooloo julit ñi nga xam mbooloo yi nga xam ne yàlla teq na leen ne fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ñi weddi yàlla nee ne lii moo leen di xaar amma ñi gëm nag insha allah ñu bàyyi cheikh ousmane
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا barakallahu fikum suñu borom nag mu ne inna alladhina amanu wa amilu salihat ñi nga xam ne day dañoo gëm te jëf-jëf yu baax ya inna la nudiu ajra man ahsana amala ñun yàlla day duñu sànk mukk yoolu ka rafetal jëfam ka rafetal jëf ulaika lahum jannatu adn ñoom dana leen ñeel àjjana yi adn mooy sax ba faw tajri min tahtihim al anhar dana daw ci seen suuf lii di dex ya yuxallawna fiha min asawira min zahab dañ leen fa takkaayal ci ay lam yoo xam ne la muy oor lay doon wa yalbasuuna siyaaban xudra daañ fa solit ay yére yoo xam ne xudra yu wert lay doon min sundus ci soie boo xam ne bu woyof lay doon wa istabraq ak soie bu diis di boy brocart muttakiina fiha ala al araik ñu suunu ca la nga xam ne nii moom mooy seen divan ya mooy lal ya ñu teg ci suuf ni ama sawaab ak a baax la nga xam ne mooy pay galeen xaar wa xasunan murtafaqa ak it rafet la nga xam ne mooy daluwaay ba nga xam ne ci la ñuy daloo mi ngi noonu bokk suñu boroom nee na alquran ngi nii diine mi ngi nii ku bëgg a gëmal ku bëgg a weddil ñi weddi wax na seen fay amma ñi gëm suñu boroom da cee dolli beneen charte mbokk diini lislaam gëm rek doyu ci weddi rek doy na ngir tabbi sawara waaye bu dee àjjana moom ngëm rek doyu ci fokk da ngay gëm ca def lu baax def lu baax lan mooy lu baax mooy la nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo tëral ni lii mooy lu baax ca loolu mbokk da ngay gis ni jullit da caa war a tënku waru caa yokk waru caa wàññi bokk na li la koy xamal mooy waxtu julli juróomi yi nii la shakk ni ah, julli day lu baax la waaye tey bu doon tene ni da nga xëy suñu borom ne ñaari rakk yi nga war a julli ci suba nga ne ah man de am naa jot demuma fenn dama koy far def ñeenti rakk rek xale bi gën a ndaw bu jàng tuuti ci diine moo lay xamal ni li ngay def dara baaxu ci amma bu doonte ne ni tey jiit da nga ne woon léegi man kat lii naa ci wàññi benn rakka du tey danaa am fay dañ naan dara baaxu ci kon jëf ju baax mooy lan mooy jëf boo xam ne yàllaa ko digle muy benn waaye nga defe ko na ko yàlla diglee ca loolu it foofu la nit ñi bari di defe njuumte da ngay dégg benn waay bu naan ñii di tere bidaa ne lan moo nekk ci jàng alquran lu nekk ci la ilaha illallah lu nekk ci astaghfirullah mbokk li ci nekk mooy lépp lu baax daa am fu mu baax lépp lu baax daa am fu mu baax jàngal quran kenn sikku sàkkwul ni bokk na ci jëf yi gën a baax ci lu doomu aadama ni def am déet sujjuut kenn sikk sàkkwul ni yonent bi alayhi salaam ne ne nit ki fi nga gën a jege sa borom mooy fi nga sujjuute kon kay man bi ma sujjuutee laa gën a jege sama borom kon naa seet jëf ji gën a baax ma daal di tari suratul baqara ci sama sujjuut gaa yi ndax baax na déedéet yonent bi alayhi salaam mu ne baaxut lu tax sujjuut kenn du ci jàngal quran loolu kon bokk jëf ju baax ci gàttal mooy ndigalu yàlla la nga def ko nu ko yàlla bëggee suñu borom nag nee na ki rafetal jëfam yàlla du ko ko nee na lal loolu muy wone ni ki ñaawal jëfam perte na jëf balaa rafet fokk day doon lu sell bi nga koy def yàlla rek a tax te bi nga koy defit nga dëppale ko sunna lii rek mooy tax mu rafet borom bi nag nee na ñi nga xam ne bi ñuy ñëw yowmal qiyaama seen ngëm moom baax na seen jëf sell na la leen suñu borom yàlla subhanahu wa taala di teeroo mooy jannatu adn mbokko ajjanay adn suñu borom yàlla moo ko bind ci loxoom comme ni mu terale sunu baay aadama bind ko ci loxoom suñu borom mi ngi ko bindee ay birigi or ak birigi xaalis lañ tabaxe aljanna décor ba fa nekk moom yàlla moo ko xam ba ñëw na ci yenn sunna suñu borom yàlla subhanahu wa taala bi mu bindee jannatu adn waxloo na ko mu ne qad aflaha almuminuun texe na julit yi may nar a dëkke yàlla na yàlla boole ñu ci waxi sawara moom yàlla ñu koy nettali ci alquran keroog bi ko suñu borom di wax naan ma sawara hëlim talaati ndax fees nga mu ne yàlla hël min mazid ndax am nga ñoo ma dolli ci saay saay su bon si kon mbokk mi ngi noonu jannatu adn nga xam ne ko xis ba dugg doo génn ba faw amma leneen lu mën a doon ci àdduna day jeex amma àjjana doo doo génn ba faw suñu borom nee na bu ñu duggee ci biir àjjana jooje dana doon loo xam ni dana daw ci seen suuf ay dex dex yoo xam ni nii dana koy nettali feneen dexi lem ya dexi sàngar ya dexi meew ya gannaaw ba ñu takkal leen ay takkaay yow mi nga xam ni mii nooy takkaay dana la jaaxal na am nan la nekk ci xéewru aljanna yi waaye mbokk xam leen ni lii di ay takkaay dafa nekk loo xam ni luy yokk taaru doomu aadama te jii boo demoon ci milieu noceurs yi nekk ci àdduna bi da ngay gis ñoo xam ne daañ jël plus de cent millions de francs def ko ci benn montre bu ñu takk seen loxo am déet ñu ngi noonu demal ay siis yooyu ay montre jël plus de cent millions ñu ngi noonu ala kulli xaal waa aljanna suñu borom yàlla da leen di takkal ay takkaay yoo xam ne takkaayu or la or boobu nag dagan na ci jigéen mu takkaayoo ko ci àdduna amma araam na ci góor muy takkaayoo or du doon lam du doon jaaro loolu ajjana lay dagan comme sangara waa ajjana bu demee dañu naan sangara amma kaw suuf yàlla araamoon na ko ci góor ak jigéen yépp borom bi dene dañ leen may ñu solu ca soie pure mooy bokkul ak policier bi ñuy wax soie mooy soie original ba nga xamee ne nii loolee ay patron dëgg ñoo ko mën a solo borom bi nag subhanahu wa taala ni lii day aka baax fay ga leen di xaar aka baax fa ñuy nar a noppaloo ji te it yow julit loolu nga war a bàyyi sa xel mbokk àdduna du kërug noos àdduna du kërug noppalu àdduna kërug liggéey la su ko defee yow la ngay bàyyi xel kay mooy naka lay def ba ëllëg ma bokk ca jay noppalu ji ci àjjana yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñu ngi noonu Cheikh Ousmane
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا barakallahu fikum suñu borom mu ne wadrib lahum masala yow yeneen ci bi dóoral leen benn misaal muy nekk rajulayni ci ñaari góor ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab kenn ka def def nañ ñeel ko ñaari jardin ci raisin wa xafafnahuma bi naxl ñu daal di koy wërale la nga xam ne mooy ay tàndarma wa jaalna baynahuma zara ñu def ci diggante ñaari tool ya ñaari jardin ya benn toolu mbay kiltal jannatayni mboolem kenn ca ñaari jardin ya atat ukulaha ma ngay indi meññetam ba walam tazlim minhu shay'a ca kenn tooñu ko lenn ca meññetu jardin ba wa fajjarna xilaalahuma naha noon it lañu ballale ci diggante ñaari jardin ya la nga xam ne muy ak dex wa kaana lahu samar ca ñeeloon na ko meññent mu bari fa qaala li saahibi noonu la waxee ka nga xam ne mooy àndandoom ba wa huwa yuxaawiruhu fekk ma ngay nekk di daggasanteeg moom ana aksaru minka maalan wa wa aazzu nafara mu ne ko man day maa la ëpp alal maa la gën a tedd mbooloo mi ànd ak man wa daxala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ma ngay dem di dugg ca jardin ba fekk ma ngay tooñ boppam qaala ma azunnu an tabida hadihi abada mu ne man day jortu ma ni dana dem ba doon luy jeex lii nga xam ne mooy sama wërsëg wi mukk ci àdduna wa ma azunnu saata qaima yaakaaruma it ne alaxira moom luy taxaw la wala in rudi wala in ruditu ila rabbi su dee ne dañ maa delloo ca sama borom it la ajidanna xayran minha munqalaba danaa fekk leneen luy lu gën sama jardin bi may doon delluwaay bu may mën a dellu ca moom ni ngi noonu mbokk dañuy gis suñu borom ci téeram bi indil nañ ci ay misaal yu bari te misaal léeg-léeg mooy gën a dugg ci borom xel ci ay wax yu bari suñu borom mi ngi ñuy misaal àdduna naka la tëddee ak digganteem ak jaamam yi naka lay jëflante mu indil ñu ñaari dëkkandoo benn dëkkandoo bi yéeféer la weddi boroomam beneen dëkkandoo bi julit la bëggam boroomam léegi ki nga xam ne daa wecc suñu borom yàlla nee na man maay ki nga xam ne maa ko defal ñaari jardin yoo xam ne jardin raisin la gis ngeen de ab yéefar bu weddi yàlla waaye suñu borom mu ne jaal naa ñun ñoo def ñeel ko ndax benn jardin déedéet ñaari jardin jardin ndeyjoor jardin càmmooñ comme nam koy nettalee ci suratu saba jannatayni an yamin wa shimal loolu muy benn raisin bokk na ci li ñuy lekk li gën a neex ci kaw suuf gën caa taaru muy raisin suñu borom nee na ñaari jardin yépp ma wërale ko ay toolu tàndarma ñu wër ko ci diggante ñaari jardin yi ma jaarale ci ay mbay moo xam ne nii pepp yaag yeneen yaag yeneen ci biir loolu ma ballal nag dex goo xam ne dafa traversé lépp loolu bu ñu mënoon am benn dessinateur mu dessine ko mbokk da ngay gis décor bu rafet rafet la lii lépp benn saay-saay noonu yàlla suñu borom mu ne maa ko ko defal ba pare borom bi nee na yi tamit mbay mi di meññi meññent boo xam ne tooñuñu ko ci dara amul benn garab boo xam ne meññentam dana wàññeeku amul lenn loo xam ne dana yàqu lépp a normal suñu borom nee na ma dolli ci loolu lépp encore daa di koy may la nga xame ni nii mooy mbooloo mu bari moo xam ne ay surga lañu ak ñu ko mën a jàppale ci lu bari lii lépp mbokk yàlla mi ngi koy defal ab saay saay yow julit biy jàng lii kon da ngay gis ndekete yow ki nga xam ne nii moom ngay war a bàyyi xel di ko war a ñee mooy kan ndax mooy borom alal yi déedéet mbokk borom alal fiyeeg gisuloo ko mu ànd ak alal ji di jaamu yàlla xamal ni kii nattu la bu ko yàllay natt waa ji li ko yàlla defal yépp lam defaloon firawna moo ko raw lam defaloon xawruna moo ko raw kon loolu yow julit ngay bàyyi xel borom bi nag nee na mu daal di commencé nag woo dëkkandoom bi ay dëkkandoo bi koy waar ci diine ne ko waay yow xoolal wàllu alal maa la ëpp alal fuuf bu dee ay surgaaki mbooloo maa la ko ëppale fuuf dugg ci biir jardin yi bonde gauche bonde droite tiitaru tourné gauche daal dina waaju xoolal xoolal ba sa bët yam ndax defe nga ni lii moom man ngaa xalaat mën naa dem ba ma suma dund gi jeexal ko gis ngeen gannaaw ba it mooy àllaaxira bi ngay wax man de gëwuma soxna àllaaxira am na waaye gis nga bu àllaaxira amoo nit nii ma yàlla terali fii noonu la may terale àllaaxira ci sa kaw danaa fa fekk lu gën lii mbokk loolu kon nekk ak puuk réew goo xam ne nii waa ji yàlla defal na ko santul yàlla jàlla jàlla waala yàlla defal na ko mu jàpp ne moo may boppam te loolu nag ngalawaay yow julit fexeel ba bu la cheytaan dugal ci loolu mukk julit gëmal ne wa ma bikum min ni'matin fa fa min allah loo am yow sa bopp ci yàlla la jóge leneen lu keneen am ci yàlla la jóge loolu kon la julit di war a gëm doog a mën a am ak dal ci kaw suuf ca la it mën a sant yàlla waaye nañu xool lan la ko dëkkandoom ba tontu Cheikh Ousmane
قال له قال له قاتله وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح طينا زرقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا barakallahu fikum suñu borom kon mu ne ko wala boog dëkkandoom ba ne ko qaala lahu saahibu noonu la ko waxee àndandoom ba wa huwa yuxaawiru fekk moom it ma ngay dagg santeeg moom akafarta bi lazi xalaqaka min turab ama ndax yow da ngay weddi ci ki nga xam ne moo la bind jëli la ci suuf summa min nutfa gannaa ba bindal la jëlale ci toq maniyu summa sawaaka rajula gannaa ba mu yemela la nga nekk benn góor lakin ay lakin ana huwa allahu rabbi yàlla moom mooy sama boroom wala ushriku bi rabbi ahada man nag duma bokkaaleeg sama boroom kenn ولولا إذ دخلت جنتك أنرتي وان بيغا دوغي ci sa jardin bi قلت ما شاء الله غنا لي دي موي لي نخ يالا لا قوة إلا بالله أمول كنكم كتن خنا لودل ci يالا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا soo ma gisee man kat maa la gën a néew alal gën laa néew ay doom fa asa rabbi an yu'tiyani xayran min jannatik mën na sama borom day ci mu jox ma lu gën ci sa jardin bi wa yursila alayha xusbaanan min assama mu daal di yónni nag ci sa jardin bi la nga xam ne mooy xusbaan arab dana koy wax lépp luy alkaange doonte ne mi ngi gën a nekk taw bu foor bu ànd ak ngelaw fa tusbiha saidan zaraqa su ko defee sa tool bi mujj nekk suuf kese boo xam ne bu rattax lay doon ay bu dara nekkul ca kawam aw yusbiha maauha gawra wala boog mu xëy ndox mépp doon luy niis falan tastati alahu talaba ba doo am kattan ci mën a fagguwaat dara ca ndox moomee mi ngi noonu mbokku dëkkandoo bu baax bi mi ngi wax ak kii nga xam ni ab yéeféer la weddi boroomam weddi bu si penc mu ne ko ay yow sama dëkkandoo naka ngay weddee yàlla mi la bind ci ban wëlbati ko bind la ci toq maniyu bind la ci ban ay suñu bàyyi aadama yàlla ko sose woon ci suuf loolu mooy la nga xam ne mooy li am gannaaw ba keneen ku dul moom ci ay doomam mi ngi leen sos ci la nga xam ne mooy toq maniyu bu dul cas exceptionnel ci isa ak hawa loolee kon sa borom boobu nga xam ne moo la bind yemele la nga nekk góor gu taxaw naka ngay wëlbatiku di weddi naan yaakaaru mu ne bis penc dana am te loolu it mbokk war a doon tontu boo xam ne nii waras na koo laaj képp koo xam ne ab ate la yow mi weddi na alaxira am na dana am léegi nag naka nga def yow bu ñëw ci kaw suuf naka nga mën a jóge ci toq ma ni yoon dem ba nekk góor gu taxaw ku def loolu la chaque ni ci def loolu moo wax dana la dekkal ëllëg yowmal qiyaama mu ne ko nag man day sama borom yàlla mooy sama borom duma ko bokkaale ak kenn ay yàlla rek laa gëm duma ko bokkaale ak kenn te lii it mbokk da ngay gis mooy li nit yi démb ya manqué woon mooy li nit yi tey yépp manqué woon mboolemi xéewal yi nga xam ni ñëw na duñ ko delloo ci yàlla xettali ko gu leen xettali duñ ko delloo ci yàlla keneen lañ cee sant ku dul yàlla jalla wa ala man de duma bokkale ak sama borom kenn mu ne ko yow sa jardin bii la yàlla wërsëgal ana lu téye woon bi nga fiy dugg nga ne ah macha allah lii day mooy li neex yàlla mu wërsëgal ma ko kenn amul kattan ku dul yàlla mbokk loolu di kaddu gu gàtt goo xam ne nga la way note ko heure boo jëmee ci sa bureau sa magasin sa tool sa service sa kër sa lu mën a doon nga ne macha allah la quwata illa billah lii day tax yàlla sàmmal la ko ndax yaa ngi yëg ni lii kat du sa kattan du sa pexe mbaaxug yàlla la gu la yàlla baaxee nga gëmin ne kàttan ci loxo yàlla la nekk mbokk bu dee xel yàlla la may xel bu dee ne réussite ci njàng yàlla ko def bu dee doole yàlla ko def alal ji yàlla ko def amul benn kàttan booy am lu dul yàlla ko def la hawla wala quwwata illa billah kon macha allah la quwwata illa billah soo gisee tey maa la gën a néew alal soo gisee tey maa la gën a néew ay doom mën na am bis dana ñëw yàlla may ma lu gën sa jardin yi te loolu la chaque ne bu amul àdduna yi dina am alaxira mi ngi noonu comme na ko yàlla dige ab yeneen tam ne ko bu ma neexee dinaa la jox lu gën lii ñu lay puukare woo mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ni waaja dolli na ci it ne ko su neexee yàlla day moo daal di indi musiba bu jógee kaw asamaan ci benn guddi lépp li nga xam ne am na nga perte doo ko benn yoon wala nga xëy suba doo gisati benn ndox ci sa tool te doo am benn kàttan boo ko jëlee te it mbokk lii mooy li julit war a gëm te moo di ne yàlla miy wërsëgal ay jaamam heure bu ko neexee mu nangu ko ak lu wërsëg wa bari bari bari mi ngi noonu kon ñu bàyyi Cheikh Ousmane rek mu yeggaleel ñu xissa bi incha allah
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أبدا ولم تكن له فئة ينصرونه أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذكره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا jazakallahu xayra suñu borom mu ni wa uxiyta bi samari nii de lañu peege meññenta ba yépp fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu xëy di wëlbati loxoom ya ala ma anfaqa fiha ca la nga xam ne dépensé woon na ko wa hiya xaawiyatun ala urushiha la nga xame ni nii moom mooy tool ba ma nga nekk lépp doon loo xam ne lu mabb la ca kaw ay pujam ba ay branche féete woon kaw yépp moo féete suuf reen yi féete kaw wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada mu ne ay waay aka neexoon ma bañoon a bokkaale sama borom kenn walam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillah ñeelu ko woon benn mbooloo bu koy dimbali gannaaw yàlla wa ma kaana muntasira te mënul woon a dimbali it boppam hunaalika alwalaayatu alxaq lillahi alxaq naka noonu day la nekk péeteg ñeel yàlla muy péeteg dëgg ay péeteg dëgg yàlla rek la ñeel huwa xayrun sawaaba moo lool day moo gën ci ak pay wa xayrun uquba te it moo gën ci loo xam ne ak mucc lu doomu aadama di mujje la wadrib lahum masala alxayaati dunia dóoral ñeel leen ba tey misaalu dundug àdduna gi kama in anzalnahu min assama daa mel ni rek ndox moo xam ne dañ ko wàcc jëlee ko asamaan faxtalata bihi nabatu l ard mu jaxasoog moom lii di meññeenti suuf fa asbaha hashiman lépp daan wëlbati ko doon mboob tazruhu riyah boo xam ne dana ko tasaare ngelaw ya wa kaana allahu ala kulli shay'in muqtadira yàlla nag nekk na ci lépp lu mën a doon doon ku ko not jalla wa ala mbokk dañuy gis ne waa ji nga xam ne ab saay-saay la suñu borom yàlla ci benn guddi la xëy indi benn ngelaw moo ànd ko taw mu buddi mboolem la fa nekkoon ci tàndarma jóor ca kaw raisin yaag mbay ma jël ndox moo xam ne sotteeku na ca ba lépp wëlbati ko waat tasaaroo borom bi subhanahu wa taala nee na bi mu xëyee wëlbati ay loxoom gauche droite cay waajile ca la nga xamee ne moom la ñàkk foofee amul kenn koo xam mën na koo dimbaliwaat ca noonu ko yàlla nettalee da ngay gis ne loolu toolum neen sax moo ko tane ndax wuxuma lam amoon yépp ñàkk na ko waaye coono bi mu nar a daj balaa mën a bayaat tool bi yàlla rek moo ko xam ñu mel ne rek tey jii ki jëndoon benn pàkk bi vide bokk la ki nga xam ne daa ñoo fekk kër goo xam ne dafa mabb rajaxoo mu mu jënd pàkk boobee ndax premier problème am mooy dindi la fa nekk suñu borom yàlla nag daa ji ne mi ngi nii lii day mooy ku bëgg féetewoo ci sa féete nekk gu lay jëriñ àdduna ak alaxira yàlla kese ngay féetewoo keneen koo xam ne yaakaar nga ko ca du yàlla na doon loolu sa pexey bopp la wala keneen ku mën a doon lépp ci pertaage kese lay mujj mbokk lii benn misaal la bu ñu yàlla wax muy wañu ne kon yow it su la yàlla nattoo amuloo alal bul jàpp ne yàlla daa furul ak yow sa dëkkandoo bi nga xam ne gisoo ko ci jaamu yàlla alalam di yokk bu mu la nax bul jàpp ne yàlla da koo gërëm ci sa kaw déedéet demewut noonu yàlla mooy nattoo ay jaamam nu mu ko neexee gannaaw bu mu dóoree misaalu ñaari gaa yooyu mu indi nag misaal boo xam ne ñun ñëpp la concerné te mooy dundug àdduna mu ne dóoral leen misaalu dundug àdduna mi ngi mel ne taw bu jóge kaw asamaan bu ñëwee ci àll bi léppay jóg jogandoo gàncax gi naat lii di génn ay fleur loolu mooy lan àddunaa ngi nii nga gis nit ñi nekk ci seen digg doole ñuy ànd ak soxna yeeg kër yeeg yépp mais lan lay mujjee mbokk la muy mujje mooy ñun ñii nekk fii tey téeméeri at ci gannaaw am na ñeneen ñoo xam ne ñoo nekkoon ndakaaru di ko doxal ñooñu anuñu bi ñu ñëpp dem na ñoo waay ñun ñii bu ñu nax suñ bopp téeméeri at ca gannaaw ñun ñëpp ñu ni dem nañu am déet alors loolu la borom bi wax nee na day mel ni ndox mu ji ko asamaan gàncax gépp génn waaye balaa yàgg mu doon mbopp ngelaw lu ñëw woof mu dem génération boobu dem noonu mu borom bi di ko defee ci mbay mi noonu it la koy defee ci nit ñi su ko defee ki nga xam ne mooy ki texe ndax mooy ki ëppoon lu mu taxaw taxawal ci ay taax ak ay oto ak ay jongama ak ay noonu déedéet loolu moom poussière lay mujj amma ka nga xam ne mooy ki gañe dëgg dëgg dëgg mooy jamono boobee nga xam ne ca la nekk ca tool ya mu waajal toolub alaxira ba ñu ngi noonu profito def lu baax def lu baax ku mel noonu moom heure bu fi jógee bu demee fekk fa lu baax xam la le mu def lii kon mooy misaal bi nga xam ne suñu borom nee na képp koo xam ne da ngaa bëgg a texe da nga koy bàyyi xel yal nañu yàlla subhanahu wa taala jàppale ba addu ba adduna ba ñoo nax yal nañu yàlla defal ko mu doon tool yu ñu waajali alaxira te buñ demee mu defal ñu jannaatu addun ñu suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal ay ngëneel la boo amee doom sarax xool karaw gi à peu près lan la war a toll nga saraxe ko loolee lu ci bari ay mille francs mille cinq cent lay doon loolu nag fàtte ko du tey heure boo ko defee mu nekk ngëneel amma soxna boo xamee ne nii day julli ci mbedd loole nañu xam ne bu dee ne julli gi tuyaaba dong la ciy sàkku mu julli ko ci biir kër ga la ko lislaam sant bal arasul sallallahu alayhi wasallam day wax sax soxna si dem julli ci biir néegam moo gën sax mu julli ci ëttu kër ga waxumaa nag julli ca la nga xame ni ni moom mooy mbedd ma loolu daal kon dañuy jàpp ne dafa ñàkk a xam ku mel noonu nañ ko layi biir te xam ne julli mooy déeyoo ak sa boroom na nga war a gën a jàppee noonu nga ko war a gën a jege noonu la gëni loolu tax bu dee góor dañ ko sant mu dem dugg ca jàkka ja ngir protéger wu bu dee jigéen nit boo demul jàkka ja nga dugg si biir kër wallahu subhanahu wa taala alam naam wala kulli xaal loolu dañ ko junjoon yàlla dogaloon na biñ koy tafsir fekk taw bi mi ngi suub suub bu metti looloo tax dañ ci jaar noonu rek jàll mooy ñetti question lañ ko laajoon lan nga xam ci ashabul kahfi loo xam ci zul qarnayni te loolu dina ñëw ci kanam insha allah ak loo xam ci ruux bi loolu amee mu ñu leen bu subaa ngeen ñëw ma tontu leen ndax yàlla moo ko ko digaloon wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira mu ne kon bu subaa ngeen ñëw ma tontu leen waaye yàlla natt ko waxul insha allah loolu nag bi mu amee suñu borom yàlla seetaan ko ba lu bëri ci mu fassiru nii dañ naan def na lu jóge quinze jours yoo xam ni jibril wàccul ci moom ba bi jibril wàccee nag ca la koy doo ko jox tontu yépp booleel ko ci ne ko nag bul waxati dara lu dul nga ni insha allah ndax yonent yàlla bi nit la comme ñun yàlla da ko doon entraîné ni mu doon entraîné xeet bi looloo tax bu dee gaa yi duñ ñëw tontu laaj rek mu ne bu subaa ngeen ñëw ma tontu leen day mel ne tontu li ci moom lu jógee yaa ngi dégg moo tax suñu borom it di ko yar ci loolu xamal ko ne ko déedéet da nga naan insha allah ndax du yow yaay xam tontu wala yaay xam leneen lu dul loolu loolu it da ngay gis ne jullit ñi ñoom jëriñu ci tamit ba yow jullit lépp looy def it da nga ciy boole wax insha allah wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mënees na doyloo loolu te fàttali nit ñi rek xam na 1000 francs bi gars yi doon joxe di ko barkeeloo ci jàkka ji incha allah koo xam ne ni indaale na ko mbokk yaa ngi ci bitti mu jottali leen ko wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain